asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 9 septembre 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi yi nag tey mu mel ni sunu làmb la ñuy xëy doore ko leewtoo point net wala Leewtoo TV bu dee yëglikaay bi di sunu làmb la nag tey dafa xëy ñëw wan ñu ñi nga xam ne nii day ay sommeur de luxe la leen yëglikaay bi di sunu làmb tudde maanaam daal ay nit la yoo xam ne day sommé nañ ci saison bi ñu génne ay sommeur yoo xam ne day yoo xam ne na daal yu luxe luxe la ñu ka ca jëkk moo di Bombardier Gris Bordeaux Ama Baldé Siteu ak saa Thiès ak ñu mel ni ki noonu ak ki nga xam ne ni tamit moo di guy gi mu mel ni ki nag ñoom ñii day année bi ñu génnee moom année balance dëgg-dëgg lañ ci def yëglekaay bi xëy tey ñëw ci ñoom ñoo ñu nga xam ne ñoo def année balance di ay mbër yu mag a mag yoo xam ne day kenn yaakaaru ko nekk day war nañu mën a def année balance ba ñuy tolloo toll noonu bu fekkente nag ki nga xam ne moo di Best 52 la ak Ama Baldé giri moom ñoom la ñu tuddee les quatre VIP maanaam ñeenti VIP yi nga xam ne day ci ngelaw li la ñu ne ñoom maanaam daal gisuñu combat ak i bët Sa Thiès Siteu Yékini Papa Sow guy gi moom ñoom itam année balance bi moom dafa metti trop trop trop trop ci ñoom sap sap daal la def beneen trio ngi nii boo xam ne moom Forza la Modou Anta ak Ama Neex ñoom ñooy trio bi nga xam ne lay ñoom dañuy wër ay adversaire mu taleen ticc ticc ticc moo tax ñoom itam seen année balance ñu def ko suñu làmbay wax ba tey ñeneen ñoo xam ne tamit ñëw na ci ñoom muy nees l'an 2000 bàyyi ma njoon les deux Aline Sey numéro 2 Elton ñoom nag ñooy bande bi nga xam ne day juróom benn yi daal leneen yëglikaay bi xëy tey tudde bande ëmb juróom-benn mooy ñooñu ñeneen ñoo xam tamit ñëw na ci ñoom Malick Niang la ak ñoom moom seeni année balance dañu koo yàgge ñoom bañ gëjee gis ngemb lu tooy ak ñuy dégg moom saison la boo xam ne day dafa daanu daal ci biir ndox ma foo leen yurub dugg fa muy waaruk énergie boo xoolee ñoom ñu ngi ci six combats ak douze défaites loolu la yëglikaay bii di sunu làmb xëy tey ñëw wax ñu ko muy dix-huit combats kon ci saison bi moo tax nag sunu làmb jàpp na ne day lii leer ba leer day ah Rock Énergie moom dox moom defu ko wala boo amee ku dox itam daal xëy na ñeneen lay doon waaye écrit ba moom seeni mbir moom dese naa dox tii di Modou Lo nag moom yëglikaay bi ñëw na ci moom ak sa som na mu demee ci loo ci mën a dégg am na benn ndam waaye tamit am na benn defet ndam bu defet bu njëkk nag la ubbee waaye fa mu tëjee nag mooy roi des arènes moom day am na lu mu wane moom mi nga xam ne moo di Modou Lo yëglikaay bi tamit ñëw na ci xale boo xale boo xam ne ni day moom la ñuy wax Petit Lo moom nag mu mel ni daal mu ngay réussir fa nga xam ne nii fa la bëgg a dem waaye ñeneen ñoo xam ne tamit sunu làmb dafa ñëw ci ñoom wan ñu leen. muy ki nga xam ne nii moo di Mor Yekini Jegaan ak Boy Sine ñoom nag la ñu tuddee les grands absents maanaam daal ñi absenté mu gën a rëy rëy ci Rock Énergie mooy ñetti mbër yooyu ñeneen ñoo xam ne tamit yëglikaay bi daa ñëw ci moom wala keneen koo xam ne nii mooy lay Pythagore moom nag mooy déception totalu Rock Énergie yëglikaay bi du suñu làmb moo xëy tey ñëw duñu ko wax moo taxit Pape Mbaye mu ngay wax may seen entraîneur moom ci mbir yi nga xam ne nii moo leen dal moom waaruk énergie muy saison boo xam ne day donte am nañ ci roi des arènes waaye dox ga mu war a dox doxu ko waaye yëglikaay bi nag boo xoole nag li leen gën a yóbbee ñàkk combat yu bëri bokk na ci problème bi nga xam ne nii am nañ ko ci ay jafe-jafe ak yenn wala jëm ci mbirum mënaat sa yi sunu làmb xëy tey ñëw di ñu ko wax leen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ca mooy Moustapha Diop mu tëggoon diggante Modou Lo ak ki nga xam ne moo di Eumeu Sène mu mel ni kii nag ba tey jii day am na loo xam ne nii deseel na ko ñi nga xam ne moo di mbër ya mu toll ci cinquante millions maanaam juróom fukki millions suñu làmb ko wax nag du sama ay wax leneen loo xam ne tamit gis nañ ko fii nga xam ne nii day moom moo di ca yëglikaay bi di sunu làmb muy ki nga xam ne nag mooy Ngor sama Diouf ma nga xam ne mooy président wu Adrien Senghor moom tamit day mu ngay wax ci saison bi nga xam ne moo war a ubbi jàpp na ne daal le 10 novembre lay ubbi fi nga xam ne nii mooy ca Adrien Senghor yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw wax ñu ko waaye leneen loo xam ne tamit mën nañu koo gis fa nga xam ne nii mooy ca Leewtoo TV mooy ka nga xam ne nii moo di Papa Sow mu nga fay wax de Papa daal wax na fa ci digganteem ak Siteu waaye wax na tamit mbër yi mu jàpp ne ñoo gën a populaire ci làmb ji ñu ne ko kan ak mu ne Modou Lo ki nga xam ne mooy Ama Baldé Balla Gaye ak Siteu ñoom ne na wax sa mbaax waaye du wàññi sa mbaax dara ñooñu la jàpp ne day ñooy mbër yi gën a populaire ci lii nga xam ne moo di lamb ji VIP ya tamit ña mu jàpp ni ca kaw moom ne na tafaati na nga ca girée nga ca Bombardier Eumeu Sène ak ñi nga xam ne nii moo di Balla Gaye ak Modou ba tey moom mooy wax waaye ba tey ci Leewtoo TV tamit dañ fay fekk ki nga xam ne moo di Siteu Siteu nag mu ngay waajal MMA ba mu mel ni ki nag dem moom la ko commencé ngor wakaam ba yoof ba ñëw ba na ko war ak jàmm gën ba ba ñuy dem mbaaw ak sikaab mbaaw ak foo ci mën a dégg ak sac mbaaw si te yëngal na ko ba mu yëngutu waaye yemu ca de wàcc na fa nga xam ne nag mooy ca mel ni guy gi gis nañ ko fa ak ñoom dafa mbër ak caat waalam saar kenn desul si te yëngal la yëngal la yëngal ba mu yëngu lam ci jublu nag mooy waajal MMA ba nga xam ne moom lay jongante yi fa nga xam ne mooy ca réewum États-Unis waaye huitième division sunu làmb ci xëy ñëw tey ay xale lañ fa gis aada faasa nga fa Cheikh super jamono Liis Njaago ki nga xam ne mooy sang Tafa Mbër ak moor Kànkang sunu làmb xëy tey wax ñu ñooñu nga xam ne ñooy waa huitième division waaye loo ci mën a dégg moom yàlla ji mu ngi taw taw bu baree baree bari taw bi nag yàlla na doon ndoxum jàmm kese kese kese ndax loo ci mën a dégg taw moom lu baax a baax a baax la waaye yàgg ki ma lay laaj ana sa waaja nu mu tuddati ka doon assuré dem sa sécurité ba booba booba du booba booba bu sitta Leewtoo TV di leen nuyu di leen gërëm di leen sant Babacar ngeen àndaloon si revue de l'arène bi ànd ak yéen si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu di la baalu ak si weeru si si jour tam bi tey. maa ngi lay baal di la balu ak yow tamit mais di balu internet yëpp ak ah. si li nga xam ne moom mooy weeru tam xarit bi nga xam ne moom lañ nekk nii. parce que moom mooy atum jullit ñi suñu at bu bees mais at bi mu ngay commencé ca première jour weer bi maanaam fan bu njëkk bi tey mooy fukkeeli fan bi nga xam ne nag ci la ñuy màggal euh, guddi tamxarit bi di ñaan yàlla yàlla may ñu di ko fee ñu koy fekkee at yu baree bare baree bëri yàlla defal ñu jàmm xewal gudd fan gu ànd ak wér gi yaram defal ko bépp doomu aadama mais def jàmm ci àddina bi daal di nuyu internet yëpp ñoom tamit di leen ñaanal jàmm rawate ñi nga xam ne tamit chaque jour ñu ngi bàyyi Leewtoo xel di rafetlu suñu liggéey ñoom it leen fàtte ñu leen di ñaanal jàmm ak bu baax a baax a baax Amin Babacar nu euh, ñëw nag si sunu lamb ak Leewtoo TV te na sunu lamb bi ngi xëyee daal si ay chômeurs de luxe maanaam VIP yi nga xam ni amuñu combat euh, jël nañ si nag nee ñu 20 la mais jël nañ si 8 mun nañ si lim kii nga xam ne mooy Gris Bordeaux Ama Baldé Tapha Tine Bombardier Papa Sow guy Gui ñoom daal nee nañu ñoom ñoo chômeur de luxe VIP yi nga xam ne amuñu amuñu combat euh, saison bi ñu génn Babacar. chômeur de luxe maanaam bu ñu ko waxee ñooy ay chômeur yu nga xam ne nii yu kii lañ daal. yu kawe daal laa ko mën a wax yu cher la ñuy laaj waaye amuñu combat. waaw waaw waaw seen i kase cher na seen i combat na mais amuñu combat. waaw loolu nag moom mooy li ñëpp constaté daawa saison bi jeex nii defe naa ne mbër yooyu ñu lim limb ñëpp moo xam Bombardier la Ama Baldé Gris Bordeaux Tapha Tine Siteu xam nga ñoom ñëpp ay Sa Thiès Gouye Papa Sow Yékini Junior Tapha Tine Modou Anta ama neex buñ ko dee lim duñ fi jóg ah ñoom ñëpp presque boo xoolee amuñu combat yaa ngi dégg ay ñoom Forza bari nañu du ñu jeex ma ay nees bu lamsaar ñu ñëpp parce que ñu ñëpp ay mbër yu mag lañ ci làmb ji lañ bokk mais mënuñu am combat loolu nag xëy ah bokkoon ko ne nii ko posé lu ñu gisal suñu bopp la léegi làmb mu am fenn fa mu toll fa nga xam ne nii est ce yi li ñu mënoon a fay si xaalis léegi mënati nañ ko loolu lépp bu tegoo nag di situation moom bu comparaison amul yaakaar naa ne kenn ku ci ne am loo bàyyi ci la nga daan def pour ngeen mën a dox daje bu ngeen deful loolu pour man chômage bi dina gën a yokku quoi kon nag ñu ngi waxaat mbëri rek ñu gën a bàyyi xel ci li nga xam ne nii mooy ak situation actuelle bi nga xam ne moo posé wu bu ko defee ñoo promoteurs yi ñu mën a dox daje déggoo ci lu nga xam ne nii ku ko def doo gaañu parce que tamit ñun du ñu souhaité benn promoteur muy tëgg làmb di ci perte xaalis parce que ay millions du caaxaan bu ñu sañoon ku ci tëgg sa làmb même boo si gañewul tamit sax nga fexe ba jotaat lañ si dugaloon man nekk ci sa jàmm yaram quoi waaw Babacar des aussi si VIP yooyu noonu dem nag si bilan écurie yi nga xam ni commencé nañ ko waa sunu lamb ren tey nag ni ngi ñëw si écurie Rock Énergie soo nee Rock Énergie mooy fii Modou loo nekk mi nga xam ne moom mooy roi des arènes mais nañ daal titre roi des arènes daal moo tax euh, ren nu xaw ree tuuti mais c'est saison saison bu bu baaxul daal lañu def maanaam am nañu 6 victoires ak 12 défaites Babacar waaw loolu moom bilan bu bu bu doy doy waar la quoi ci Rock Énergie vraiment mu yëkkati ba nga xam ne ni tamit euh, maanaam yàggul bi ñu ko sancee mais nag xëy na mérit bi ñu am mooy bi mu sancoo yàggul mais fexe nañ ba def formé fi ay champion yoo xam ne nii tey ay mbër waada lañu ndax boo bul fàttali que ne bul fàtte ne Rock Énergie Modou Lo mi nekk acteur roi des arènes fa la ne Zos fa la nekkoon Zos euh, Garga Mbossé rakam fa la nekkoon mën nañoo lim kon loolu mérite la mais ren nag vraiment dañoo passé à côté moom boo bëggee dégg-dégg parce que li tax mooy que ni li nga xam ne nii moom mooy loolu six victoires tous défaites loolu boo xoolee bu doon examen la dañ naan la yow jàlluloo waaw bu doonoon kon xëy na ak Modou Lo mi nga xam ne ñàkkoon na ko moom dellusiwaat ñàkkantewaat ba jël roi des arènes kon xëy na doon na gën a metti mais nag ku ku amul la nga bëgg am la fa sës comme am nañ loolu écrit bi nga xam ne nii tey am nañu roi des arènes loolu tamit nekk noo xam soo amee ci écrit defe naa ah dina doon lu ama am solo mais nag kon dañuy gën a veillé rek li ñu leen di wax mooy xëy na saison prochaine ñu gën a veillé ci xale yi nga xam ne ñoo fa nekk gën leen a encadré parce que bu ñu ko defee xalaat naa ne écrit bi dina dikkaat fi mu nekkoon ci wàllu ay ndam mais tamit di leen félicité ci li nga xam ne ni gagné nañ ko muy roi des arènes bi parce que loolu tamit am na solo trop trop ci écrit mu dugg fa waaw si si Modou Lo boobu des sax ndax euh, promoteur bi nga xam ne moo tëggoon combat royal bi si diggante Modou Lo Eumeu Sène le 28 juillet bi passé muy Tafa Diop journal mi ñuy xamal ne yore na ñaari mbër yi million millions Babacar lu xaw a doy waar ndax keroog si point de presse bi Moustapha Guèye dafa ne yoretul benn mbër xaalis tey nag dafa mel ni loolu la am lu sunu laam dafa indi contre pied wu euh, euh, promoteur bi Babacar. waaw yaa ngi naan Moustapha Guèye bi Moustapha Diop. Moustapha Diop voilà bi ñu actuellement mu ngi au niveau de TFM. nekk président association des sages de la lutte. de la lutte voilà ñu koy nuyu suñu père Tafa mais Moustapha Diop tamit di ko ah loolu tamit vraiment su amee dina doon lu metti parce que mooy li ma waxoon sànq rek ñun yéenewuñu kenn loolu parce que ah, kii tey bu ñu ñun bu ñëw dugg ci làmb boo tëggee vraiment boo ci génnee da nga ciy génn ak say loxo ca kaw talal ko kenn bañ laa topp dara nga bañ a topp kenn dara mais tamit ah bu ñu ne 50 millions la yoreel bor ñaari mbër yooyu muy Modou Lo ak Eumeu Sène loolu vraiment du tuuti ah. Euh, làmb nag moo mel noonu dafa nekk mbir moo xam ne nii moom euh, néewuma nit mokkal na ko de waaye mokkal ko en cent pour cent est-ce yomb na moo tax tamit loo ciy def rek nanga ko planifier teg ko si yoon wax ceeg ñi ngi ci war a waxal pour ëllëg parce que mbir la mi nga xam ne xaalis nga ciy dugal fooy dugal xaalis nag boo xam ne mayewoo ko te koo ci yoral 100 francs dina la ne yoral nga ma 100 francs kon loolu jar na balaa nga ciy dugg rek wala boo koy def rek nga xool li ngay def lan la xool tamit ndax li may def jaadu na wala jaaduwul wala wala fi tam ba yokkale wax la baaba yandoor kañ waaw waaw nag encore une fois ñu koy encouragé encouragement bi mooy le fait que mu ñëw ci làmb tëgg combat boo xam ne ñu soxla woon nañ ko loolu dèjà ñu ngi ko ci encourage di ko ñaanal yàlla bu baax a baax a baax di ko félicité mais tamit di ko ñaanal tamit loolu nga xam ne moom la ñuy wax bu fekkente ne mooy lay am yàlla na ko yàlla dimbali ba mu réglé ko pour jàmm mën a am parce que dafa ñëwoon tamit indi apport am ci làmb te yow it defe naa indi am na am na benn tuus bu mu indi ci làmb boo xam ne nii xëy na soxla woon nañ ko mais nag liggéey xëy na tamit mooy faral di demee Babacar suñ jógee si mbirum xaalis boobu noonu dem nag si mbirum social euh, association Dekki Làmb noo demoon seeti super jamono 2 super jamono 2 fan yee ni nga wax ni dafa feebaroon soxla woon na xaalis euh, bu bëre boo xam ne fu mu mun a faj yëpp daal nu jàppale ko de démb nag euh, waa Dekki association Dekki Làmb dem nañ ko seeti yóbbul ko enveloppe bu tax takku dem xool ko xool yaramam Babacar waaw loolu de dañ ci naan alhamdulilahi rabbil alamin ndax tamit wolof na ñu bokk teen ñooy laxasu ay goj bu fekkente ne super jamono numéro 2 boobu yaakaar naa nag Pikine la nekk parce que des fois am na ñu ma doon woo naan ma ban super jamono la yooyu mais super jamono bi ñu yaakaar ne moom la bu nekkoon rek si te nekk Italie léegi du boobu super jamono bi yaakaar naa waa Pikine la kon loolu waa Dekkil Lamb def tamit ñu ngi koy rafetlu parce que geste bu noble la parce que ki nga bokkal milieu wala sax waxuma mais doomu aadama yi nga xam ne gis nga ko mu nekk yenn situation yu catastrophe yi yaakaar naa ne nga jóg dimbali ko te yàlla tax loolu ak jaamu suñu borom la te yaakaar naa loolu yàlla moo ñu ko digal ñun ñëpp dañu war di dimbalante te yàlla tax ci jamono yi nga xam ne soxla nañ ko parce que tey soutien de famille la woon nekk xale nekk si làmb ndok ndok dab ko ba mu toll ci yenn situation yi waa dekkee làmb def loolu kon dekkee làmb ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëfati di leen ñaanal yàlla tamit yàlla gën leen a yokk gën leen a kàttanal ka nga xam ne tamit moom lañ jotoon dimbal ba yàlla na yàlla wéral ay cëram ba dellusiwaat ko ci sagom ak ci biir ay mbokkam ak ci biir réew mi parce que tamit moom loolu la ñu xam dimbalante te yàlla tax xëy na wax ji mën naa bëri ay werante ñàkk boo gis-gis mais kenn ci génnewul sa morom nekk yenn situation yi moom bu caaxaan jeexee ba dëgg des loolu moom la Sénégal yi di dund mais vraiment daal ñu ngi nuyu waat waa Dekkil Lamb di nuyu tamit association yi nekk ci biir lamb yëpp quoi vraiment loolu rafet na trop waa Dekkil Lamb loolu am na solo Babacar lu dem nag si Leewtoo TV démb li nga woon si open press su Siteu fële si si stade de mbaaw Babacar yaa ngi fa woon ak sa équipe euh, def ngeen fa reportage bu bu am ñam comme ni nga koy waxee bu am solo dañ ngeen fa loo xam ne mu du ko daj sa taal yow ak ñoom yàgg ak ñoom euh, ñoom moomoo maane waaw waaw tarkindaa yi dem xam nga ñoom ndeysaan démb xam nga reportage bi moom neex na trop macha allah waaw ñu leen di nuyu ñoom ñëpp rawatina am naa ci sama ay nit yoo xam ne nii foofu xam naa leen wala ñoo xam ne ay soppi Leewtoo TV lañu ñu mel ni ñoom El Hadj Elzo bu Siteu xam nga Elzo Design ma koy nuyu ñoom Siza ak booba doomu nday yàgg di nuyu entourage Siteu bi yëpp ah ñoom Abu Ñaase gars yi ñoom Mama Lamine parce que démb vraiment Siteu def na lu nga xam ne tamit c'est la première fois mu am si si si suñu sport parce que MMA lay jongante ji au niveau des États-Unis ñëw def fi open press am départ fi nga xam ne mooy am wala Yoff utal si jàmm a gën ñëw ba mbaaw ànd ak maire ku dëkk politicien bu dëkk mbaaw bu ñuy wax Obama yaakaar naa conseil présidence de la république la moom it mu encadré ko ñoom ñëpp ñu ñëw fa dégg nañ fa Pape Mayel Diop ak ay ñoom Abbas Ndoye muy lu nga xam ne vraiment loolu rafet na ñëw dooleel ko ngir lan ngir MMA bi mu dem ci ñaanal ko ci yàlla ndam gis nañ guy gi tamit mu nga fa woon te moom la Siteu mujj bëreel Tafa Mbër ay ñoom mbër yeneen mbër yoo xam ne nii bokkuñu ak Siteu gi ñëw nañ jàppale ko démb vraiment muy loo xam ne lu rafet la daal démb mbaaw moom waaw yëngu na trop Siteu nag xam nga ko gi démonstration ma ki feccam moom waaw. <laughs> ok euh, Babacar suñ jógee nag si bëree dóor bi nag jeexalee si bëree bëree simple bi euh, Ngor Simbu de moom jël na contre euh, jël na devant les devant comme li ñu koy waxee moom daal nee na saison ren Adrien Senghor le 10 novembre lay ubbi loolu la dina xaw a yéeme ndax CNG seen bilan sax pareegul joxeeguñu seen seen bilan au niveau du ministère des sports mais daal moom génne na datam daal nee na le 10 novembre daal lay ubbi nag euh, fi nga xam ne moom mooy Adrien Senghor. waaw Ngor Semou moom suñu tonton la moom moo jiite Adrien Senghor ah, waaw moom nag xëy na euh, comme lamb ji dañ na octobre la war lay ubbi officiellement ci papier yi xëy na moo tax moom mu jàpp ne le 10 novembre la arène Adrien Senghor di commencé tëgg loolu tamit su amee dina nekk li nga xam ne ni luy neex amateuru simple yi la mais loolu lépp yaakaar naa tamit ñi nga xam ne ñoo yore dernier mot bi wala ñoo yor seen cëggal guy mooy waa CNC ñoom bu ñu joxee ndigal rek ne saison bi def demee ne nii ubbi nañ ko heure bii ku mu neex tëgg heure bii bu keroog loolu dina mën a am mais xëy na lay wax ak li mu yaakaar ne loolu la war a demee parce que bu bu dee octobre la ubbi officiellement normalement novembre warees na mën a tëgg làmb mais nag comme li nga wax léegi xëy CNC li mu war a def yëpp ci wàllum kii yam am na yoo xam ne defagu ko ci mais comme li ñuy wax rek nu ñu Euh, gannaaw suba ndax suba féré wala baabu ko jox rendez-vous suba nag gars yi da ngeen di nga ñëw suba waaw non <laughs> wala yaa ngi dem ak yaay si cere ja <laughs> kon boo leen jox di dajee gannaaw suba incha allah mais balaa boobu may baalu àq lu bëree bëre bëre sama yaay c'est vrai que des fois nu jàppante mais bu ñu bi noonu dëkk di ko baalu àq lu bëree bëre si tamxarit bi du nuyu sama yaay euh, du nuyu euh, sama doom Mohamed Diouf du nuyu Dadi Gueye naa ko egsi la jàmm euh, di nuyu Astandine depuis Italie DG Brahma di nuy chérie Khadija Diallo di nuyu sama doom yooyu noonu Mame Diarra Penda Junior duñu euh, aussi bébé Fallou du la fàtte yaa ngi si biir depuis passé Assini unité 26 Babacar. waaw am na solo ah, di nuyu ñëpp yooyu itam di la nuyuwaat di la souhaiter tey comme mooy sa anniversaire ah le la ñaanal le maa ngi jéggul di la ñaanal yàlla yàlla na nga ko yàgg a feete barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon yàlla nañu yàlla dimbali ba nga xam ne ni lépp lu suñu way jur bëgg dinañ ci mën di taxaw suba ba ngoon ba seeni xol di mën di bëgg di ñaanal way yëpp di tamit di ñaanal way jur Aïda ay sama série bi yaayam tey la anniversaire ama yaama jaw kon suñu yaay yaama ñu ngi lay souhaiter que ni yàlla na yàlla guddal fan yi wéral cër yi barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne tamit moom mooy soxna ah non Adja Bintu Diouf da baax moom maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di mbokk Khady Rose Ndiaye moom mu nga ba Allemagne moom dina defar tey cerewu cere Allemagne pour tamxarit bi kon xadiroos maa ngi koy nuyu bu baax a baax xam nga gaa yëpp maam Modou Gueye taal bi suñ mbay si Abdou Alioune Sarr Ahmed Mbeng xam nga Mor Wadd Ayuba xam nga gaa yëpp maam Babacar ñëw si match bi fàtte woon naa ko match bi ngeen defee woon samedi <laughs> match <laughs> dimanche Fatim Fall tamit maa ngi koy nuyu bu baax a baax Fatma Fall mu ngi jóge ba mu ngi Sénégal actuellement maa ngi koy nuyu Salif Balde di nuyu Boubacar Silam xam nga Omar Ndoy gaa yëpp nuyu naa leen Abdoulaye Mbaye maa ngi koy bëggee match bi moom na mu demee mooy xam nga Leewtoo ak Lutte TV ñoom ñoo fubal arbitre yi fubal ak beneen équipe ba arbitre yi gagné fële ñun ñu gagné waa Lutte TV waa Leewtoo gagné waa TV. ñu finaalu nous pat kii lañ leen gagné tiro bi ñu finaalu ak arbitre yi ñoom Malick Ngom ñoom ñu gagné ñu 2-0 kon di féliciter Malick Ngom ak équipe am waaw mooy sport. arbitre yi nga xam ñoom dañu dooroon moo jën bay paase nga ah waaw du ñun waa TV dañ ñëwoon su ngeen ñëwee premier tour ngeen di toog. ñun arbitre ay xale yu ndaw la ñu door ay xale yu ndaw dégg arbitre yi ay xale la ñu Malick Ngom ñamaandu ay booy la ñu. arbitre yi ñu ci xam ay xale yu ndaw la kon ñu ngi leen di féliciter daal ñooy ñoom ñooy finaliste yi ñoom ñoo gagné ñun ñooy ñoo jël médaille de bronze bi waaw di nuyu tamit ki nga xam ne nii mooy Serif Fall mi nga xam ne moom moo initié woon loolu Ibrahima Faye Beus tamit gis nañ ko fa duñ ko fàtte borom Ligue TV ak BP Acti di nuyu équipe bi yëpp Mouhamed Dieng tamit duñ ko fàtte Papa Ndiaye ñoom Youssou Fall. nga nuyu sa waa ja kii yàgg maar kenn da koo sañ a fàtte. doomu ndeyu Kempes Fall. Fall mën a de Fall Fall ne woon ci défense bi Modou Mané kenn day moom Mané rek. maa ni jour plein la nuyu naa ñëpp ñaanal ñëpp jàmm. kon ba ba gannaaw suba allah.